commission dialogue nationale daal di nañ jàpp date 2 juin ngir rek mën a amal jongante njiiti réew yi gannaaw buñ amalee ay waxtaan yu yaatoo yaatu ñoom ñi le nag daal di nañ déggoo ngir rek élection présidentielle yi mën a am. waxtaan nañ suñu biir depuis ci suba ba heure bi ñu doog a trouver consensus que ni ci wiir ci li ci ëpp mooy weeru mois de juin weeru mois de juin parce que yeneen weer yi yëpp programme yi événement yi xew yi et tout ça ñu dem ba mois de juin. date bi ci gën a génn mooy le 2 juin. mais li ma fa jàpp daal bi ma fa génnee mooy ñoom gis nañ ne daal def élection yi bu ñu war a tenir compte de tout ce qu'il y a comme événement ak hivernage bi di pointé def ko le 2 janvier balaa 2 juin balaa muy taw moo gën pour Sénégal. commission bi doon liggéey ci wàllum date présidentielle bi kii di ministre de l'intérieur Sidiki ba moo nekkoon ca bopp ba ñoom ñi le nag daanaka huis clos lañ daal di amalee seen liggéey fu toll nii kii di njiitu réew mi moom rek la déglu. il faut que ñu am quelqu'un pour le faire man pour man jàpp naa ne président de la république moom mi yoroon réew mi moo ko war a mën a dàq keneen ku koy jàng yor ndax oto wala train mënoo koo dawal nga xëy ba yegg si gaar bi ñu ne panne na dañ ko war a yóbbu. ñu ne seet keneen ko yóbbu lul mécanicien bi ko fa yóbbuwoon yaakaar na loolu problème la. candidat yi nga xamante ne nii dañoo bañoon seen candidature fële ca conseil constitutionnel ñoom ñu le nag daal nañu waxtaanee seen i jafe-jafe. ya nga xam ni conseil constitutionnel euh, arrêté woon na leen liste bi. ñoom ñu continuer euh, ñu ubbi réexaminer dossier wu ya nga xam ni ce sont des candidats recalés ou dix spoliés. candidats dix spoliés ñi nga xam ne nee nañu dañ leen génnee ci condition yoo xam ne jaarul yoon dinañ ko saytuwaat dañuy ubbiwaat loolu bu dee ñoom ñoo nekk ci yoon dañ leen di dugal ci biir processus bu dee nag dëgg-dëgg nekkuñ ci yoon dañuy jàll ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi.